na ku yeeg doom yeeg xarit yi ak dëkkandoo yëpp ñu ngi leen di gërëmaat ndax du du benn du benn du tey rek yàgg na kër gi yàgg ngeen di ñëw tey dem naa su ma juumut mooy juróom-ñeenteelu yoon ngeen di ko wàccee alxuraanul karim yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu yal nañ ko yàlla nangul sant nañ leen bu baax a baax a baax Thierno nag moo ma jottali ni naa ci wax jéem a gërëm mbokk yi jéem a leen a gërëmaat ndax du du tey rek yal na yàlla nangu yal nañ ko yàlla nangul. seen mbokkum taalube bu lot ci kaddu moom la jox kaddu tey fii ci gaage ci benn wàcc kaamir bu ànd ak cante ñu di ko defal sunu baay gu baax boo xam ne dafa bëggoon Sëñ Tuubaa lool muy Baay Aliou seen teg ci it am lu ko yàlla dénki ci mbaaxam. muy lu baax loo xam ne wax dëgg am na fu mu féete ci dëkk bi muy feebar boobu ñuy wax tension moom it di ko daan faj bu mu fi jégo it bàyyi ko doomam ñu baax ñu taxaw ko di ko def di ñaan yàlla it mu barkeel ko lool ndax feebar bi sonal na nit ñi mais yàlla mi nga xam ni moom moom lépp am lépp nekk fépp ñu ngi koy jël sunu mbir yëpp teg ko ci loxoom. mi nga xam ne démb moo fi nekkoon moom rek bu mu namee amal lu mu amal mu amal ko nekk ak fi moom euh, dina demit jamono mu nam nekkaat fi yet mu dindi lépp des fi bon yàlla moomu moo moom lépp moo am lépp moo lépp jël nañ suñu lépp teg ko ci loxoom di ko ñaan feebar bii daal yàlla yaa xam fi nga ko yógge ko indi fi nga ko fi nga ko jëlee ñu ngi ñaan ci sa mbaax nga delloo ko fa bi jaay sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke suñu seex ndigal kaddu yi nag lot na lool ndax nit gi lu mu nampul pour mu wax ko dafa xaw a jafe mais nag séeréer day wax ne nag mu ñuul de boo ci amee mais mu weex war a sant yàlla ban liñ ci wax olof di ko jéem nañ ko sant yàlla ndax mën nañ ko te mënaat suñu lakk bon suñu bénéfice la lii nag ñu ngi sant doom yi nga xam ne ñoo ko taxawu di ci jiital Abdou ak maam Thierno ak sëñ Abdou mi ak sëñ Modou mi ak sëñ Adama ak mboole seen seeni rak di ñaan yàlla mu nangul ñu ko lool wax nag jamono bi dafa tollu foo xam ne wax dafa jeex jëf moo des mbir mi di ko dund ñu xam ne yaa ngi koy dund mais di ko wax moom dafa dafa xaw ne dafa xewi parce que àdduna moo toll noonu moyen yi dafa bari am ñoo xam ne nangu nañu am ñoo xam ne nanguwuñu te ñooñu nanguwul it dañoo gestu ji xam-xam ba mën a controle ba mën a jàkkaarloog ñi nga xam ne mooy dégg te nit ñi it dañuy seet dégg xam ne lii dégg la ñu won ko ginnaaw ku nanguwul nag nanguwul ku nanguwul loo wax wax dëgg it du nangu rek waaw day wuut li attaqué loola bu def ko ay caaxaan tasaare ko ci réew mi ñoo jàpp ci loola te fekk du dëgg mais yàlla nañ xam ne moom moom lépp yàlla nañu yàlla saxal ci dëgg rek. wàcceel kaamil suñu baay Aliou Sène man na baay Aliou Sène bi ma koy xam boobu man xale bu ndaw laa dëkk ak ay mbokkam fee fu Foundiougne suñ kër yi nekk benn boobu lotissement yi amagut boobu kër yi bu la ci neex boo duggee ci bii génn dugg ci bee loolu moo amoon Adama xam na ci lu leer Modou mi xam na ci lu leer ma yaroo noonu yi ci ronam. ah lii nag lu baax la ndax yonent bi sallallahu jàngal nañu ne nit bu génnee àdduna léppam dagg na léppam dagg na maanaam mënatuloo def yiw boo xam ne léegi daf koy fekki waaye nag doom boo fi bàyyi woon mu lay ñaanal comme lii ñu def nii loolu daf koy fekk xam-xam boo fi bàyyi woon nit ñi di ko jëriñoo loolu tamit daf lay fekk leneen tamit loo xam ne sarax boo fi bàyyi woon tabax nga jumaa gas nga teen wala boog jëmbat nga garab yooyu yëpp loolu daf lay bëgg du fekk kon loolu yëpp daje na ci Pa seen Sène indi na fi xam-xam boo xam ne ñëpp a ngi ciy jëriñu loolu moom leer na ñëpp sëñ Thiaw jiitu na ma ci léegi wax na ko kon nag euh, sant yàlla bu baax a baax loolu daal ñu ngi koy yaakaar man nag njabootu Aliou naw naa leen lool gërëm leen li tax euh, man naw leen euh, ànd bi nga xam ne suñ yaay ci kër gi ànd nañ ko nekk benn di ëkkatee ndoor di tegandoor seeni doom tamit ànd nekk benn loolu laa leen gën a yéeme saa yu ma ñëwee fii ñoom ñëpp ci yàkk ñoom moo doog ñoom Adama ak euh, Thierno ma fii laa leen di fekk ci jàkka ji fa la ñuy tase fa la ñuy jullee loolu nag mooy jullit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ngeen gisee nit mu taxaw ak jàkka seedeel nañ ko ne gëm na yàlla kon ay doom gëm nañ yàlla kon am nañ yaakaar ci ñoom yoon bi ngeen jaar daal bu leen ko wàcc lii nag ah yàlla na yàlla jàppale leen ci rek kaamil bi yàlla na ko yàlla nangu yàlla jotal ko yool bi sëñ Thiaw li muy wax loolu moom moo war a am nga diina ji si ah, waxtasimu bi abdillahi jami am la yàlla wax mooy leen ci buumu yàlla bi yéen ñëpp wala tafaraxu bu leen teqalikoo kon nag loolu ànd boobu moom moo war a am gis nga programme bi amoon noonu seex Ndigal di fi ñëw dama ne ah sëñ Thiaw de daf ma ko yéex a yëgal waaye man de dinaa dem ñi ah ma ko fàttee yëgal waaye man de bu jotee dinaa ñëw keroog mbooloo mi moo bëri mais Ousmane Sène mi leer na ko maa nga woon ca mbooloo ma waaw ñëw naa ñëw naa maa nga woon ca mbooloo ma mais mbooloo mi moo bëri woon kon loolu moo war a am nga bi taalibe bàyyi di maa ngi ko wax démb seeku ma ne ko eh, ànd bii ma war a am keroog bi ma ñëwee di def fii conférence ci julli gis naa fa Modou Sène mu ñëw waaye nag buñ ne ñii ñoo xewle ñii ñoo xewle ñii ñoo xewle du ma dem ñee ñoo xewle du ma dem duñ am doole doole jën ndox kon nag nañ ànd te nañ ànd ci dëgg waaw nañ ànd ci dëgg buñ ci kooju dara rek ah dinañ mun a ànd ànd gi dina neex waaw eh, yonent bi dama taratu fiikum amrayni lan tadilu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaaballahi wa sunnati mu ne ñaar laa leen bàyyee su ngeen ci jàppee dootu leen réer mukk suma gannaaw mooy alxuraan ji ñu doon jàng léegi ak suma sunna kon ñaari yooyu buñ ci tegee suñ tànk dootuñ réer mukk mukk alxuraan nag téere la woo xam ne ni ko sëñ Thiaw waxee léegi inna nahnu na zikra wa inna lahu la xaafizun waaw da ngay dégg ñu naan franc yi dinañ yàq alxuraan bi ñu ngi def ñu ngi def ni mais nañ wóolu li yàlla wax man wax yàlla bi gën a wóolu yàlla li mu wax kenn munu ko teree nekk alxuraan ji dina ko sàmm moo koy sàmmal boppam ku toll ni yàlla na bu ne dina ko sàmm rek dina ko sàmm waaw kuñ ci boole woon ñaari policier rek nga foog ne yow am nga sécurité ku toll ni yàlla nag bu lu mu dina ko sécuriser loolu dina ko sécuriser nañ góor góorlu dem ci jàkka yi mag ñi nañ jaamu ji yàlla ci jàkka ji jàkka yi léegi peut-être xale yi lañ ko bàyyee ndaw yi nañ nangoo liggéey liberté day am njëg ku am jom boo xëyee liggéeyal yàlla li mu wax ne wa maa ja'alnaahum jasadan laa ya'kuluuna ta'aama wa maa kaanu xaalidiin loolu moo am de defuma leen ñuy ñam yoo eh, jëmm yoo xam ne duñ lekk ñam comme doo lekk ñam foog nga nangoo liggéey boo amee jom mu ne duñ fi béel kon dañuy dem kon nag comme dañuy dem te dinañ rendre compte kon nañ nangoo jaamu yàlla kon mag ñi nañ jaamu yàlla ndaw yi nañ nangoo liggéey jigéen ñi nañ nangoo sëy jigéen ñi sëyatuñ de dem am benn weer nga delluwaat fa nga jóge woon loolu du sëy de sàcc yi nañ leen tëj ci kaso bi sàcc bëri na trop bu njëkk ba da nga daan tëj rek néegi gattax sax kenn du ko laal mais léegi dañuy jaamaar la yow digg bëccëg nangu sa alal di xeex ak police yi sàcc yi nañ leen tëj ci kaso yi dof yi nañ leen eew nga dof bëri na léegi de xam nga ñun ku solo yére rek foog nañ ne doo dof mais am na dof bëri na de ñu ci bëri boo leen joxee kàddu nga xam ne waxi dof la ñuy wax waaw te léegi koo taalal micro mu wax te du ko teg ci xam-xam nag al ilmu xabla al xawli wal amal xam-xam moo war a jiitu wax ak jëf bu xam jiitoo wax dina jub jëf dina jub waaye su fekkee ne léegi xam-xam jiituwut kon léegi affaire bi du mun a aw yoon bàyyi seen yitte aussi teew fi ñu ngi leen di gërëm bu baax te aussi reconnaître nañ ci seen présence ak seen it seen yitte yëpp ngeen bàyyi ko teew si affaire bi vraiment ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant سيني مودو نيغي لين دي گيرم بو باخا باخ ني گيرم مبولم ييب ويلا ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا واصدقائنا واساتذتنا ومصائحنا خاصه ويلا ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اجمعين أما وإلى جميع أصباء الخيرات من المؤمن والمؤمنات اللهم أنصر من نصر الدين اللهم أنصر من نصر الدين اللهم أنصر من نصر الدين واخذل من خزل المسلمين واغسل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين maa ngi leen di gërëm sant leen waaw lii nag mooy suñu ñaanu papa bi chaque année lañ koy def bii mooy neuvième édition waaw di ñaan rek ñëpp nañ ñaan yal na ñaan bi nangu yal na ko yàlla xare aljana yi firdawsi yal nañ koy teewee ay déwén déwén sarax bi yàgg suñu si loxo waaw gërëm nañ ñëpp ñu fi teew ci ba ba tey ñu ngi fi ci laax yi di togg di yàkk di seddale waaw ñu ngi gërëm ñëpp